yee gars yi Laporta président FC Barcelone bi mu ngi gaaruwaale waa Real de ci mbirub kookee di Arda Güler yamaatuñu foofu gars yi nañ leen indil xibaar mercato ci Ousmane Dembélé moomee nekk itam foofee ci FC Barcelone clause libératoire am ak mba day dem ak du dem ak ñoom seen lan la ci Laporta wax salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant gis ngeen ni ma leen ko annoncé noonu Real de Madrid Barça ah, ñu bëri dañ doon wax naan dañ doon xëccoo kookee di Arda Güler ak ñoom seen kii di Laporta génn na bay leeral nee na kookee di Arda Güler cay gone googee jur na coow nee na ñoom dem na ba ak moom ci njekk ak teraanga ba mu nangu ne pare na pour ñëw foofee ca FC Barcelone mais dañoo dem ba ci moment benn moment gis be mu ne noonu la ko waxee mu ne dañoo dem ba benn moment rek gis benn club jógee fële ñëw rek waaw ah, ne dañuy suufu proposer li ëpp ñun li ñu teg gone gi nag finalement ak clubam dem choisir club boobee te ñoom nee na kookee la Laporta ñoom duñ xëccoo joueur ñoom dépasse nañ niveau boobu duñ xëccoo joueur ci ay vente en enchère maanaam duñ ko jour ci ci ci teg xaalis boo xam ne ni jaru ko noonu laa ko mën a wax expliquer quoi xaalis bu bëri waaw mu ngi noonee nee na daal li waroon def noonu ko finalement rejoindre na kooku on passe waaye it yamaatuñu foofu kookee du Ousmane Dembélé gaay clause libératoire am ci mercato été bi 50 millions de dollars mais le Laporta génn ba rassuré fan yeeg ñoom seen nee nañ Ousmane dafa bëgg a toog Barça waaye it ñoom tamit dañoo bëgg a Ousmane toog Barça waaye ñoom nee nañ duñ activer. clause libératoire Ousmane Dembélé bu 50 millions d'euros bu ko defee ku ko ku neex rek ñëw mën jël comme PSG mi doon jéem a jaay neex di jéem a teg proposition wala di jéem a coytu kon nag fan Barça seen xel te kookee di Laporta ak waa Barça nee na ñu ngi jéem a travailler nu Ousmane Dembélé di prolonger contrat am ci mercato été bi jëm ca kaw a kaw longue durée kon nag nouvelle boobu laa indi ci Ousmane Dembélé li Laporta génn wax tey ci kookee wax na ci Lionel Messi nee na moom dafa préféré Miami kon nañ ko bàyyi mu dem yéene amuñu benn problème ak moom yéene nañ ko lu baax bon continuation loolu la génn lax ci kookee di euh, Lionel Messi ba tey dañuy des ci xibaar mercato bi di leen leeral que ni Brighton seen capitaine boobee euh, anglais bi di Lewis Dunk nag moom nag dafay prolonger contrat am ak Brighton ba 2026 une bonne nouvelle pour vous les euh, xaw ma nu leen tuddee waaye di leen leeral que ni euh, le joueur boobee nga xam ne mooy seeni jeen clubam boobee di QPR nga xam ne dafa jóge dem Middlesbrough waa QPR nag ñu wut ab remplaçant ku mën a gérer camp yi ca gannaaw kookee di seeni jeen ñu tuddee ko Begovic moom nag mu ngi war a jóge foofee ca Luton Town dem foofee ca QPR Euh, année bi di ñëw ci juin bi waaye di leen leeral que ni le euh, joueur boobee ñu naan Arsène euh, Jacquard Yann moom nag dafa war a signer foofee ca Feyenoord sa Feyenoord sori na ci lool ngir war koo mën a signer sax benn at sax baax na 22 ba 2024 mu ngi noone contrat daal dama juum dafa dem na ba 2024 ak clubam jamono ji daal Feyenoord daal sori na ci ngir war koo mën a signer mu ñëw foofee jàppale leen bu baax a baax waaye Chelsea ak kookee di Ajax ba tey ñoom it ñu ngi ci mbir bi ngir war koo mën a xëcc ci kaw kookee di Feyenoord di leen leeral que ni le jeune joueur euh, serbe boobee nga xam ne mu ngi am saison ans ñu naan ko euh, David euh, Perisic non du serbe slovène la moom nag mën naa ni dafa prolongé contrat ak Udinese mu ngi judd 2007. mu ngi noonee mu doon jeune joueur bu am avenir ñu ngi xaar nan lay demee ci avenir bi ak kookee di euh, Udinese gars yi ba tey mu ngi noone xibaar mercato bi di leen leeral que ni kookee di euh, Enzo Fernandez nekk foofee ca Chelsea nee na fexen la tout pour jéem a convaincre kookee di Dybala pour mu ñëw foofee ca Chelsea nag joueur la mbokk argentin la te xam na talent bi ne ci moom bu ñëwee foofu ndam bu rëy rëy lay doon euh, pour kookee di Chelsea de même que Thiago Silva jéem na ko convaincre mais waxul woon lu leer ñu ngi xaar nan lay mujjee ak kookee di Chelsea ancien club Edouard Mendy euh, Kalidou Koulibaly muy noonee gars yi loola nekkoon xibaar ci euh, nguddi gi leen xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee képp koo xam ne nag abonné goo suñu chaîne YouTube c'est simple dugal suñu bio TikTok nga bës logo YouTube bi mu yóbbu la chaîne YouTube ko defee benn suñu vidéo dootu leen rawati jàmm ci ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à yaa gars yi tey Real de Madrid am na joueur boo xam ne nii tey photo bi wër na monde entier kookee ngeen gis ca ginnaaw di Bellingham daa mujjee xoox salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant xibaar mercato Barça Real ak waaye club yëpp a ci biir mu ngi noone waaye dinañ leeral que ni tey après démb ba Real ma defee seen premier entraînement tey danoo defaat entraînement waaye tey Ancelotti tey daa tàllal gars yi ba ñenn ñi mujj ki dañ doon ŋaag gémmañ lañ doon nooyee. sama copain sama joueur Bellingham ndeysaan tey ji dama ko yërëm tey dugg nga ci gën euh, nuñ ko xatee sax euh, nu waay waaye waaye cour des grands yaa ngi ciy doog a dugg nag Real de Madrid on parle de Real de Madrid zéro tolérance Barça Real Man City ak yooyu li tax ñu jël Ligue des champions ak yooyu ñoom seen amul tolérance entraînement ba ñàkk tooy xib jëlal Garcia moomee ca côté bi moom di jaay ngóora tey jours yi danoo mujj noo mee nag tey entraînement bi dafa métti dañ leen a dawloo dawloo ba mujj gi da ngay ree ba tas waaye di leen leeral que ni ah, fële ci FC Barcelone Victor Roque eh, Laporta génn ba leeral que ni lépp mat na signé nañ ko si officiel doon na mille Barça 2024 la fay ñëw mu doon jot joueur boo xam ne ñoom kontaan nañ ci signé ko mu ngi noonee loolu la Laporta leeral nee na lépp mat na c'est scellé signé nañ ko contrat bi jeex na takk tàkk tàkk mu ngi noonee gars yi bu loolu weesoo it dañuy continuer euh, xibaar mercato ci yeneen club dem ci Manchester City moom ak nga xam ne sànq tudd noonu ko seen joueur boobee di Alvarez nga xam ne dañ koy faral di tudd ay Real ak ñoom seen moom dafa jël décision prolonger contrat am boole googu lam daaw satisfaire na ko bëgg na ko tey dafa bëgg mu toog foofee euh, quand Alvarez ñëw ñoom seen bébét mooy ñu toog foofee waaye ñu am temps de suñ leen ci mënee jàppale bu baax a baax mu ngi noonee leen leeral que ni euh, Galatasaray daanaka ak kookee di Angers Lyon leer na nañ jeex na takk signature moo ci des visite médicale signature ñu officialise ko mu jeex euh, Tidjani Rajner nag moom mu ngi def pressing clubam boobee di Al Alkmaar pour ñu bàyyi ko mu dem foo rejoindre AC Milan bi nga xam ne moom am na accord total ak AC Milan mais club beeg AC ñoo amagul accord actuellement AC Milan teg na offre vingt millions d'euros waaye Al Alkmaar moom nag vingt cinq millions d'euros moom la laaj pour ku ko teg ci table bi rek mu jox la gone googee mais gone gi nag muy def le tout pour rejoindre Milan Milan ba tey club joueur bi bi fa bëgg a dem tey suba la war a def visite médicale am mu officiel tem signé nag accord am na entre Milan ak Chelsea visite médicale mooy des ñu officialiser ko mu dem kookee di Pulisic l'américain waaye beneen joueur bi nga xam ne war na dem foofee ca Milan mais ca Inter lay dem nag Inter euh, ñu naan ko. Yann Bisek moom nag l'allemand mën naa ni euh, visite médicale bi tamit suba la ko war a def bu ko réussir incha allah dem rejoindre Inter de euh, Milan kay Caicedo nag mm, transfert am gudd na yàgg na mujj ki dafa dem ba soof ngeen baal ma ci kàddu gi moom nag mbébétam yàgg na ko wax yaa deux mois jox na wii Chelsea moom la bëgg a dem ba nii li des kay mooy que que bii di Chelsea ak Brighton ba léegi ñoo trouvé gul accord te euh, dañ na woon jege na mais booba léegi gisaguñ accord bi ñu ngi xaar nag mbir mi nan lay demee ba xam dina réussir ou pas. pour les Blues kookee di euh, Caicedo ba tax sax sax Arsenal bëggoon na ko mais d'après après mu jëlee Declan Rice moom ak kookee di Timber ay mbiram jeex na ci kookee di Caicedo di leen leeral que ni euh, Sergej Milinkovic-Savic nekkoon foofee ca Lazio ma leen doon annoncé que ni dafa Arabie Saoudite club bii di euh, Al Hilal bu ñoom Kalidou Koulibaly ñoo ko bëgg te moom dafa amoon intention jóge foofee ca Lazio de Rome club am bàyyi woon nañ ko mu dem c'est officiel tombé nañ accord ci 40 millions d'euros pour mu dem rejoindre boobee di euh, mu ngi noonee ci bu ñoom Kalidou Koulibaly suba daal euh, sûrement si war a def lii di visite ngir war a rejoindre euh, club boobee gars yi loolu moo nekkoon xibaar gi ci journée bi ma leen di xaar ci commentaire yi tey jii 11 juillet 2023 si suba corrigé nañ ma xam nga rek lii ne ci bopp bi moo bëri. waaw da ngay wax ci plateforme yëpp ngay bëgg alimenter di wax ci jour yëpp eh, nekk ci sa bopp da ngay dem ba mujj gi da ngay perturber te lépp maa koy defal sama bopp moo tax parfois ci date moo xaw a juum ngeen ma ci bu baax a baax mu ngi noonu ne tey 11 xibaar mercato indi nañ leen ko ci njekk ak teranga képp koo xam ne nag abonné goo suñu chaîne YouTube gars yi bu ko taay demal suñu bio TikTok nga bës logo YouTube bi mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan foofu vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous